foroote bi tànk lu mu metti metti yax lu mu metti metti nerf sciatique arthrose ndigg luy metti wala guddi gi moom doo nelaw yaram bi day tàng di diis gént yi bari lool nga xam ne na xale da koy jël mag da koy jël képp koo xam ne yaa ngi sante sa yaram daal lu si bokkul surtout wàllu kortu wàllu liggéey boo xam ne sa yaram bi ay table def ay picc di tàng di diis boo ko ci diwee day sedd guy picc yooyu da koy traité ba mu daj bu dee wàllu euh, neer la wàllu sidit wala yax buy metti forote bi moom moo si gën a gaaw forote bi mbiru baatin la forote bi moo tax tout fu nu neex mën nañ ko faa dugal ndax forote bi day dem ba bitim réew di faj nit ñoo xam ne ne dañoo ama woon si euh, côté cancer te liggéeyoon ko ngir waaw loolu moom moo tax toujours damay wax ne day faj cancer waaye man jox naa ko nit mu faj si cancer loolu nag euh, waxuma ko woon si farata bi ndax du ma ne kenn day faj cancer kooku moo ko jël di ko def ba mu faj ko moo tax farata bi li mu faj lépp sax ñun xamuñu ko waaye lii ñu la si limal daal moom bu dee wàll ginne moom une semaine mu làkk ko ba mu dañ moom nga xam ne dootoo centrati wàllu jinne si si sa wàllu yaram